président Macky Sall amal nañ ko njukkal bu mag a mag mag ndax daf fi def lu kenn kenn kenn deful bilan musul am ci Sénégal moom nag bi muy dem daf ñu joxoñ kenn mooy jëmm jële ñu naan Amadou Ba daf ñu joxoñ Amadou Ba waaye Amadou Ba bi mu koy joxoñ daf ko joxoñ parce que mooy choix de raison maanaam mooy ki nga xam ne li mu fi liggéey ci plan Sénégal émergent ak xale alal ju bari bari bari luy ñëw moom moo ko mën a conduire ñun nag dañoo créer mouvement tuddee ko jàmm ak tawféex te dinañu taxaw pour jàppale Amadou Ba ba mu gagné incha allah février 2024 au premier tour. merci président. Amadou Ba nag chance bi mu am mooy dafa nekk ministre directeur général des impôts et nekk ministre finance finances nekk ministre des affaires étrangères nekk premier ministre. Ah. waa léegi lan moo des. président lan moo des. lan moo des. lan moo des. lan moo des. kon nag nañ ko gunge. ni ñu koy gunge mooy yomb na nañu wàcc ci terrain bi wax suñu rakk yi ndax ku leen wax waxu nit ñu xam ko. président Amadou Ba dinañ ko fal 2024 au premier tour. maa ngi leen di nuyu. di leen wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf li nga fi wax